réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. comme ami cher internaute yéen ñi safoo di seetaan les Patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi ki nga xamante ne moom moo di moo gétt nekk fële ca États-Unis moom daal mu ngi leen di xam ne kat dafa war a déposé li nga xam moom moo di candidature élection yi 2024 bokk na si ñi nga xamante ne nee nañ. am nañu objectif ak euh, li nga xamante moo di bëgg-bëgg jël li nga xam moom moo di réewum Sénégal ndax réewum Sénégal bu yenn policiers yi ñëwee ba léegi dafa nekk loo xam ne développé dañuy sàcc li nga ne moom moo di alalu réew mi tey jii jël na li nga ne engagement ak détermination nee na kat jël li moom moo di réew mi defar ko ba mu ne cocc comme États-Unis nu mu daal di mel ba tax mes chers internautes ma leen laajte lan ngeen xalaat ci li nga ne moom moo di candidature moo gét bile ndax dina am dara wala du am dara seen réponse voilà ci commentaire yi jaayen jëf